ban la. yoonu jàmm rek direction incha rabbi. Abbas. dama ñëw sax. sama drapeau bi dimbali leen ma rek. waa Mbacke léegi nag ñoo ngi nii ci yoon ñaar leen ñu jàmm ak salaam ak gudd fan ak jàmm lan ngay wax population de de Mbacke ak Touba ak li wër foofu la ñuy jullee tey ndeysaan di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen wax ne meeting bi day am ñu ngi ànd ak nag ku sell ki ndeysaan xaar leen ñu foofu la ñuy jullee isbaat jotee waaw yaa fi ne Ila Touba yaa fi ne député du peuple yow lañ bëgg yow fi